Babacar xale xëy suba dem na jàng ñëw su wàccee si kër gi xëj na yaayam mu ngi ci liggéeykaay waaye temps bi yaa wàcce fekk xale bi lekk añ na ba dem dem dem foy yaayam si ñëwee sax wala papaam sax bëgg ñëw lijjanti pour xam fa xale bi nekk xale boobu du mun a baax parce que moom dafa mel ni xale bi nga xam ne nii rek time bu la neexee dugg ci kër bi time bu la neexee génn bu fekkente ne ci wàllum jaay bi la dañ laa bàyyi nga jaay ñoom lu amal interest mooy jox nañ la palaat xam nañ ne Euh, fifty dollars moo fa nekk boo demee nga andi fifty wala nga andi leneen li nga xam ne ni moo ko ëppa bu ñëw lijjanti pour xam naka nga ko jaaye bu ñëw lijjanti pour xam naka nga amee xaalis ba mu ëppa li nga xam ne ñoom lañu la jox kon lii mooy li nga xam ne nii moom moo ñu sonal moo wax ji yëpp xale yi am nañ ci wàll waaye ñun yaakaar nañ ne waajur yi ñoom itam ñun ñoo am wàll parce que ñoom ñooy toppatoo xale yi ah, waajur bu mën a toog ba wax ne mënu mënuma si suma doom dara hmm. kon dafa am li manqué si yow parce que boo amee doom doom boo déggee ñu naan parent mooy nekkul rek nga am doom rek jeexal waaw am na li nga xam ne nii moo war sa diggante ak sa doom mooy pour mu ñu jàngal xale bi xale bi xam xale boo xam ne nii judd na bu commencé ba euh, dem bay ràññee nga commencé di ko waxal di ko jàngal yu kooku su magee di nga mën ci moom dara waaye ki nga xam ne ni bi moo judd waxuloo ko dara da nga ko bàyyi mu jaroog fee na nga bëgg koo jubanti waaw a dem so lii mooy li nga xam ne nii moom mooy ñoo sonal waaw ci wàllam tourisme nag foog naa euh, GT bi wax nañ li nga xam ne nii moom mooy mooy wax ji waaye man du ma wax ci wàllum tourisme waaye naa wax ci wàllum club si parce que comme tey bu ñu ko xoolee club time booba place mag la woon ba tax na mag yi rek ñoo fa daan waaye léegi club dafa dem bi nga xam ne nii place xale la ba tax na sa xale yi suñ gisee mag muy dem club dañoo wax ne kii tamit mag bi lu mu ut si fii. because ñoom dañ foog ne si jamono jii ñoom ñoom moom place boobu noonu so xale yooyu noonu suñ demee ba foog ne euh, mag moo matut club xalel moom moom club eight o'clock wala euh, seven o'clock nga tëdd nelaw bu eleven o'clock jotee si guddi nga door a jóg sangu dem ci club bi sa waajur yi ñu ngi toog yëg nañ ko wala yëguñ ko xam naa dinañ ko yëg parce que booy génn sax waajur su ko yëgutee soo dugg si kër gi bu dee waajur bi nga xam ne ni am na contrôle si kër gi war naa mën a xam mooy li nga xam ne ni moom lañ war a xool ne waajur yi toppatoo xale yi bu baax xale yi tamit war a xam ne ah àdduna de moom bu waajur demee ba nekkatu fa nag xale bi si boppam bu fa nekk soo bu fekkente ne tey yow toppa nga sa àdduna def li nga xam ne nii mooy sa bànneex bu ëllëgee sa wàjju su fa nekkute dina métti si ñoom de ña ñun am na si ñoo xam ne ni ña papa a demal seen bopp parce que bi ñoo te euh, euh, am na place bi nga xam ne nii moom la réew mi yaakaar pour ñu dox te suñ ko defarutee tey bu ëllëgee duñ fa mën a taxaw yooyu yéen tey waxtaan wi gënati na am solo lu tax gën a dina am solo mooy dañuy waxtaan li nga xam ni mooy baaxal maanaam suñu réew muy suñu ay ndaw mbokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo li ma buggee ñu xam ko mooy gis nga mag mi fi nekk tey ñu di ko tagg nan mooy mag mu baax mooy xale bi ñu yaroon démb mi ngi mel ni garab bi nga ñëw rekk gis doom yi nga witt ko lekk wala nga jënd ko lekk nit a ko jiwoon démb di ko suux moo tax toujours yarkat yi ak boroom xam-xam yi dañuy méngale xaleel ak garab dañ ni garab su demee bay ndaw jubbantil mu jub di wéy bu dee mag ba am kàttan balaa jub nga damm ko ñu ne xaleel tamit su demee bay ndaw jubbantil te wan ko njub ndax momit magbaam bu balaju mag ba am kàttan bala jub rek nga dam ko dañu ne xalel bu demee bay ndaw jubantil te wan ko yiw saxal ko ci ay teggin ak yar mu màggee ko man fi may wax moy xalé yi nga xamni surtout xalé yi jigen yi nga xamni dañuy genn guddi ci yenn waxtu yi lolou du responsabilité ken kudul way juri parce que ku nek xamna ni doom responsabilité la yàlla bi mu la ko joxee joxut la ko rek pour boyal la daf la ko jox am lum la ci sas te yonent bi yàlla yónni woon alayhi salaatu wasalaam mos na wax lu neex loo xam ni waajur yëpp waroon nañ koo déglu mu ne ku yàlla jox ñaari doom yi jigéen nga téye leen ci kër gi yar leen ba ñu mag nga maye leen ñu dem seen néegi si yàlla may la aljana bu waxee loolu benn góor jug ni ah yow ki yàlla ni man de benn doom bu jigéen rek laa am mbaa su ma ko yaree ba mayee ko yàlla na ma may aljana mu ne ko xakke ah, ku am benn sax boo defee li la yàlla wax moom it mu def li mu wax kon nga gis ne dafa mel ni wajur yu bari xamuñu loolu te waroon nañ ko xam nag kon génn bi xale yi di génn ci yenn waxtu yi responsabilité wajur yi la ndax bu njëkk daawoo génn ginnaaw timis daje xale rawatina jigéen rawatina nag mu sol col goo xam ni kenn xamul nu mu mel euh, li ko indi nag docteur am na lu mu ci wax léegi nii dañ ni dañ ñàkk waaye ñàkk bi gën a métti mooy ñàkk jikko gis nga boo yaakaaree ni ñàkk xaalis rek mooy ñàkk déedéet xaalis moo gën a tuuti ci li ñoo ñàkk doomi aadama boo ñàkkee sa jikko ñàkk sa valeur yi amatuloo dara nekkatoo dara te sa ñàkk jikko googu noonu mën ngaa dem ba yàqu ci yow yàqaale ci réew ma nga nekk dañuy dem ba japp ni waa réew ma yépp ñak fayda gi nekk ci yow mo nekk ci ñoom té lolu war nañ ko moytu bu baaxa baaxa baax euh légui la xew xalel bu jigen ba étokuloog mu solo génn né yaay ma ngi dem nga ni demal té ñew ak jam no xay lay ñewé du ñëwee ak jam <laughs> naka lay ñewé ak jam mu a ak jam ah? la jaad won yaay ma ngi du am xalaatu sax naan la yaay ma ngi dem du ko bu njëkk xale bu jigéen pour mu génn bëccëg sax problème la sakantuma laa guddi muy sangu solu sol lu bon tàggoo ne maa ngee dem ñu ne demal te ñëw ak jàmm mu dem ñëw indi xam na boo nekkee njaay ku ndaa mu indi afra jox la nga ni doom yàlla na la yàlla defal jàmm bi laa yaa gën ci man mais mooy musiba ci yow ah kon yu te yooyu yëpp mi ngi day xew ci programme yi ma yi ma yore am na benn xale bu jigéen moo ci bindal lettre yàggul ma matut one week mu ne problème am mooy dafa nekk ak magam ci biir këram magam am tubaab boo xam ni daal tubaab bi moom la ut si woon waaye moom tubaab bi daanaka ni mu ni mu ma ko waxee moroom mi maamam la mu ne kii daal dëgg-dëgg maa ngi moom méngoowuñu waaye magam ji ko nangu mu ne moom lañ jël tey fal ci kaw moom daanaka dañ koy xas di ko ŋàññ di ko saaga di ko wan ni tekkiwu dara ngir lan ñàkk gi mu ñàkk nangul tubaab boobu ànd ak problème boobu yépp tubaab boobu mu ngi ànd ak kooku one week ñi ngi ànd di dem di ñëw di fanaan te ci seen kër yaay ak seen kër bàyyi la ñuy fanaan di pati di lekkoo di naanoo ñoom ñëpp ñuy fekke ndaw musiba gis nga problème yi liy xewee ci biir kër yi moo gën a garaaw liy xewee ci hôtel yi mm-hmm. hôtel yi seen tur dafa yàqu rek waaye lii xewee ci biir kër yi moo gën a garaaw am naa ci lettre boo xam ni ba ba nii may waxee tey kooku mu nga dëkk ak nga dëkk maanaam tubaab boobu ci biir kër gi sëy jaarul seen diggante te waajur bu góor bi ci boppam moo jël responsibilité moom bàyyi bi nga xam ne mooy bàyyi xale bu jigéen bi moo jël responsabilité génne ñaari doomam yu góor ci saay bi dëkkee woon jël foofu noonu jox ko doomam bu jigéen bi ak tubaab bi ba sas yàlla tey alxayri amut dara amut te ñang fa. mu nga dëkk ak tubaab ma nga dëkk ak moom te dañuy ànd di tukki di naaw di tag di dem fu nekk. kon loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu gis ne xale yi suñu yàqoo tey suñu yàqoo tey wallahi ëllëg ñu mun a am benn société bu baax parce que xale yi fi nekk tey ñoom ñooy nekk mag yi ëllëg tey képp ku wootee woote bi am njëriñ woote bi am njëriñ xale yaa ca jàpp moo xam lislaam la moo xam lu mu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy woote xale yi ñëw topp ko benn mag taxaw fa leen ni eh, ay bàyyi leen ko xale yi a ko topp am ku ko ne yow wax nga musiba kii li muy woote mooy jëm kanam parce que xale yi kuñ topp li li li li nga bëgg di ko am kon man duma nangu ñu ne dañoo ñàkk ba tax na ku jóge fële rek ñëw rek ñu daal di lay ubbil suñ bopp nga def lu ñu neex am na ci it yoo xam ni it wax dëgg yàlla duut ne ñi jóge fele ñoo koy def waaye ñun ci suñ biir ñoo koy defante mm-hmm. bu yàggul damay waxtaan ak benn góor ci programme bi ma amee ci mbiri xale yi mu ne ma ne moom day li ko naqari ba tax mu ñëw di waxtaan ak man mooy doomam daf doon jaay ci gaaraas bi hmm. moom sax loolu neexut neexut ko waaye yaayam moo koy jaayloo mu ne mu topp loolu topp loolu topp topp loolu ba bés mu soxla xale bu jigéen bi pour am lu mu koy bindaloo ko moom jàngul tubaab mu jaral ko mu sol daalam dem ci gaaraas ba li aji sëriñ doon wax léegi nekk ci biir gaaraas bi ñu nekk ci